dalee nag jàmm ci lii yéen yi xëyee tey ñu koy dore ak le quotidien bu yof moom mu ñu xëyee ak mbëkk mi gaal yi nga xam ni gone yi ñu ngi koy jël jamono yi wutali yoonu Espagne ñu nemmeeku ni am na gaal bu diig sandar doon wutali mbëkk mi juróom benn nit daal si ñàkk seen bakkan lépp juróom fukki nit fi mu toll ni kenn gisagu leen na les échos di del soit ci ñetti gaal yi réeroon bàyyeekoo fii si Sénégal doon wutali Espagne mbir mi yéemi lool gën doy waar itam yor yor rëdd moom ni ONG bi di Commandos Frontera di ci taxawu gaal yi réer ci géej gi fi mu toll nii si njaqare ak jaaxle la nekk daal di it dëggal ay kàddu Ousmane Sonko weddi li ay Aïssata Tall Sall wax jëm ci ne ndaw yooyu ñu àdduna ñetti téeméeri ndaw la ñu toll bàyyeekoon Sénégal ni dañu réer ci géej gi ndax doon jëm mbëkk ma ONG bi daal di dëggal ni loolu lu am la libération xëy moom itam rëdd si xëtam mu njëkk ni barsa wala Barsaq dafa dellusiwaat gone yi jëlaat yoonu géej gi wutali mbëkk mi Babou Sène di consul bu Sénégal bu nekk sa juróom benn fukki ndaw yoo xam ni fi mu toll ni ñu ngi ci tànku delloowaat leen ci Sénégal ñoom ñu nekkoon ci yoonu jëm wutali mbëkk mi Walf Quotidien xëy ñu tey ak risque bi di xaar ki di Macky Sall ñeel ki mu war a tànn ngir mu wuutu ko fi atum 2024 mu nar a boot waa Benno Bokk Yaakaar la tribune moom xëy ci biir parti socialiste ak AFP rëddine gaaluk Benno Bokk Yaakaar bi nag dafa weng te fi mu toll ni ñaari parti yooyu ci diig la ñu jëm source a tey ci suba si ak daje bi jiitu réew mi Sall amaloon ak député yi fare ak moom député yi daal di États-Unis fi mu toll ni ñoom seen tiitange mooy ñu tas assemblée nationale bu ñu noppee ci tànn jiitu réew yu ñu jëm atum 2024 ba noppi ñooñee teg si ni ñoom fi toll nii dañoo am ay boro banque yu ñu jël te bu ñu tasee assemblée nationale atum deux mille 2024 xamuñu naka la ñuy def ngir fay bor yooyu njiitu réew mi Macky Sall mel ni ku leen tànqamlu tontu ni su ñu bëggee seen coalition bi am ndam faw rek ñu jàppal tànk ki mu fi waaj a teg te itam bu ñu bëggee moom mu gunge leen dimbali leen itam ci seen candidature boobee faw rek ñoom ñu déggoo bañ a xiiroo yéenekaay bu Medina bi rëdd moom itam ni boo moyut parti boobee fare ci nguur gi ci tas la ñu jëm ñuy rumandaat si suuf itam ci war a doon candidat Benno Bokk Yaakaar wutu fi Macky Sall atum 2024 24 heures di ko feelu ni am na sagar guy xeeñ ci candidature yëpp ñeel ñi ñu duppee waa système bi nga xam ne dañ fay yàgg lool ku ci mel ni xalifa Sall Karim Wade mbaa Idrissa Seck ñu duppee leen ay candidat système bi des nañoo xaar nag lu bare bare soppeeku ci tànnu jiitu réew yi ñu jëm ndaxte askan wi léegi dafa am beneen tànk bu ñuy taxawee te itam am gët gu ñuy xoolee ñi nga xam ni ñooy candidat yi rëdd moom itam si lu mu duppee le grand désordre muy pëccëxoo ak rapajo bi am ci mbirum candidature yi parrainage rax ci dolli yéenekaay bi àdduni lim yu candidat yi war a ut jëm ci parrainage yi itamit bukki ba matoon yenn candidat yu atum 2019 boo may tut loolu lañ nar a dundaat ren ji enquête moom yër bosu Ousmane Sonko rëdd ni moom bosam leeragul la muy dikkaat ci li yoon wax ci mbirum usman Sonko ñeel candidature am ga Vox Populi xëy tey ak Juan Branco di avocat sant ndax li mu àdduni am na ay takk der yu France yu ànd ak yu Sénégal yi di boom ndaw yi doon manifester Juan Branco di tont ci plainte boobule Sud Quotidien rëdd moom itam si BFM bi nga xam ni ndongo yi tàmbali nañ ko muy lijaasa bi ñuy ut naka tey lu toll ci téeméeri junni ak juróom-ñetti fukk ak lu teg ay ndaw ñooy ut diplôme boobule stade le quotidien xëy ñu tey ak tirage bi ñeel éliminatoire coupe du monde 2026 si wàllu football ñuy xaar ba xam ñan la gaynde yi di tase la record di ñu xamle ni Sénégal fi mu toll ni nag ci chapeau 2 bi la nekk ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakarnet dara du la ci réew mi